بسم الإله القادر رب رحيم الشاكر خير العباد ناصر الحق بخاق الأكبر بسم الإله القادر رب الرحيم الشاكر خير عباد الناصر حق بخاق الأكبر سيدنا محمد وآله والحمد صلى عليه السمد مع الحديم الأكبر نويت مدح سيحنا نجل الحديم بشرنا إمام الدين ربنا وهو الإمام الأكبر شيخ عبد القادر الجليل وهو الحبيب والحليل وهو الإمام والضليل في دين الله الأكبر moo ñëw ñëwaale njëggal ak buur yàlla ngir nu am ëllëg yërmande jam digoon ëllëg ñagëm imaamul akbari Cheikh Abdul Qadir ay imaam fa yàlla moo matit imaam fi diinillaahi sun imaam indal ilah mooy akbari kum jiite kooko texe na te ku ko gis it texe ku jëf ci moom it texe na moo imaam jëy akbari kum jiite kooku texe na te ku ko gis yi texe na ku jëf ci moom it texe na moo doon imaam jëy ak bari billaahi sëñ bi mooy imaam fa yàlla tax mu doon imaam fa xayri adnaani imaam xayrul waraa al akbari غوص لقطب ليسريف عارف لباي بدي سريف عبد الخديم كي سريف مو أمر داء الأكبر عالم عابد كريم moo fonk quraanul kariim qawlan wa fi'lan la yariim wallahi moo doon ak bari ma wax la tuut ci ay mbiram nga xam ni moo am ay ngërëm ca sëñ bu mag ba yor ngërëm jox ko ko moom kay ak bari bintul xadiimi soxna may moo ma ko baaxe woon ni mbay ku baax ka doon boroomi may meloom wa mooy moom ak bari gis naa bi yor meloom te jox ma ngan léppi meloom doonu nu ñaar wenn meloom wax wal imaamul akbari loolaa nga xewe woon Dakar lii moo taxoon ganuk Dakar murid yi yépp daa ko xaar si kaab imaamul akbari yal na nu Cheikh Bamba gërëm ci moom sëriñ ba am gërëm doom yeeg sëtam yi am gërëm wal muslimun al akbari sëñ Muntaxa mum sëñ Basiir ak jawriñam ja sëñ Basiir kantu debaay ba sëñ basiir yal nan fi sax bil akbari may ñaante far taxawlu fii sunub xalifa yàgg fii ak kay loxoom yor baat bi fii najulul imaamil akbari may ñaante far taxawlu fii sunub xalifa yàgg fii ak kay loxoom yor baat bi fii najulul imaamil akbari amiina yéen ñépp ne leen amiina buur ba boole leen ñoog yéen ngërëm lu mag amiin barkeeb imaamul akbari amina yéen ñépp ne leen amina buur ba ñoo ki yéen ngërëm lu mag amin barkeeb imaamul akbari